jërë ngeen jëf ci diggalu président de la république monsieur Macky Sall kii di gouverneur bu Kaolack monsieur Aline Badara Mbengue moo ngi yëgle ni li ko dalee fukki fan ak benn ci weer wii jàpp ñetti ñetti weer ci ay ci ci kanam tëj nañu baar yi discothèque yi salle de spectacle yi salle ak terrain de sport yi aaye nañu tam ndaje mi ci plage yu mel ni Kahone Koundam ak Babalong bi ci xew-xew yi ngénte ceet ak dëj dakkal nañ ko li jëm ci restaurant yi ku jënd da ngay yóbbu ndax toogaay bi ci biir restaurant yi ngir lekkee fa wala naanee fa dañ koy tere gouverneur bu kaw Kaolack mi ngi fàttali ba tey takku masque yi ci bërëbu liggéeyukaay yi ak yu commerce yi soriyante bi raxasu bi ak laalum gel bi day wéy di bokk ci seeni santaane mbokk téléspectateurs yi Xeweul gi TV jërë ngeen jëf lii lañ leen indi woon xibaar xibaari ay bés bi di leen jox dig daje ba beneen yoon